sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas nañ ko fas yéene liggéey bala ñoo dugg ci kàddu yi nag nee na dañuy teewlu nee na ñaanal a cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu boroom dëgëral ko kàttanal ko dolli aw fanam ba mottali mbooleem aw yéeneem ndax képp koo xam ne yaa ngi ci agronome yëg nga ak yëkkatiku yëg nga ak puukarewu nee na yëg nga ak yëkkatiku sa digganteek sa borom nee na yëg nga ak yëkkatiku sa digganteeg sa say nawle nee na loolu nag lu ñu sëriñ Tuubaa taw féexale te àdduna sépp xam ko nee na comme nag ñun ñi ko yàlla defal nee na war nañ koo yëg te xam ko bu baax ndax nee na la sëriñ bi waxoon rek nee na ab jaam bu ko yàlla defalee dara te xamu ko nee na bu dajee moom it mën na caa bana a jëriñu nee na comme nag ñu ngi koy ñaanal lool mu yàgg fi te wér di sant rek ak gërëm nee na ak cantam ci yéen waa Hizbut Tarqiyyah nee na am na tàmbali waaye amul fum mu yem waaye nee na ku leen di sant day feeñal yéeneem waaye nee na suñuy kàddu tuuti na ci feeñal yéeneem ci ñoom ci yéen ndax koo xam ne waa kër sëñ Touba yëpp njabootug sëriñ Touba gi yëpp kenn ku ci ne seere na ci yow seere soo xam ne seere mënu koo gën a kawe nee na Cheikh Abdoul mi nga xam ne ci nekkam ci la daayira Hizbut Tarqiyyah sosoo nee na lam leen waxoon ne leen na moom mii moo jëwriñam ja ak ñi ngeen àndaloon nee na gis naa ngeen dëm dënmal dëkk boo xam ne nee na kenn mënu leen faatee egg te bu ngeen fa yeggee ñëpp leen ciy ñee. nee na loolu nag sëñ Tuubaa defal na leen ko tey ndax loolu li koy firndeel nee na képp ku bëgg a doon a murit wala nga yor melokaanu murit yéen lay jéem a roy nee na comme wax ji yegsi na ndax nee na loolu mooy li gën a tuuti ci lim leen waxoon waxoon na leen itam saa su ngeen wéetee ci seen biir te kenn raxu leen lépp lu ngeen tënk nee na ngeen xam ne wax yu Serigne Touba la nee na dara gënu koo rëy loolu Serigne Abdoul Khader Mbacke yéeneem ci yéen ñëpp xamoon nañ ko nee na bi mu nekkee sëriñ Touba li muy gàtt gàtt ci biir màggaluk Touba boobu xat na lool nee na boobu tuxu soogu leen Touba nee na waaye dafa bàyyi ba sëlmal gee ñëw ba ci yéen nee na seere kàddu cant ak i ngërëm te nee na loolu mooy li gën a tuuti ci lam daan seere ci yéen nee na ci diir boobu sëriñ Saliou Mbacké nee na boobu nekkagul Serigne Touba nee na dégg na leen ngeen di jàng ci biir kër sëriñ Abdou Khadre Mbacké nee na mu booti loxoom nee ngir yéemu ci njàng mi. nee na doxee këram ba egg ci si kër Serigne Abdoul Khadir nee na déglu njàng mi ba mu jeex mu delluwaat nee na comme loolu nee na yooyu seere nee na kenn mënta seerewaat ci yéen lu ko ëpp nee na waxoon na ne leen seen ak màggal mooy sama màggal seen ak gàmm mooy sama gàmm nee na loolu mooy la ca gën a tuuti nee na comme lu fa mas a ñëw rek yéen la koy dénk nee na lu ko mas a ñor rek yéen la koy dénk ginnaawam itam Cheikh Mouhamadou lamin Baara ñëw bi mu egsee rek ngeen jëmmal ko ba moom ci boppam nee na ku ko xam ci mujjam da nga xam ne yéen a ko gën a doy ci léppam nee na loolu moom dund na ko ci digganteem ak yéen a Cheikh Sidi Mokhtar ñëw nen da daan wax lu ko gën a li ko gën a ci yéen mooy def lu baax yomb na nee na yéen way gi ngeen ci way amul tawat amul amul taw amul naaj amul guddi amul bëccëg nee na loolu mooy li ko gën a yéem ci yéen nee na a Cheikh Mouhamadul Mountakha mii fi nekkal sëriñ Touba nag nee na moom dafa bokk ci seen biir nee na ànd ak yéen liggéey bépp bay Serigne Touba seeral leen boppam nee na bu yàggul rek nee na mi ngi koy nettali sëriñ Youssou nee na ginnaaw gàmm gàmm gi la yàggul ëppul weer te fekk sëriñ bi njëkk na koo wax ci ginnaaw waaye nee na moom lii moo moom ak yàlla rek la. Cheikh Mouhamadul mun wax ko ne ko maa ngi sant yàlla bu baax di sant sëriñ Touba ci bim ma gindee ci ñoom waaye maa ngi sant sëriñ Touba itam nee na yooyu bi mu la gindee ci ñoom ñu bokk fenn fuñ ne nee na commune nee na mu ne ko maa ngi lay dénk nee na yow mi nga xam ne la ma ca la ma ca mën a nettali waaw. am na ci loo mëneesu ko. waaw. la ma ca mën ne nee na la mu ca mën a nettali lay tënkee. mu ne ko kon mi nga xam liggéey loxo mu ne yow mi nga comme yow mi nga xam ne liggéey bi sa loxo la nekk. maa maa ngi lay dénk daayira Hizbut Tarqiyyah. nee na maa ngi lay dénk daayira Hizbut Tarqiyyah. ci lépp looy defal sëñ Tuubaa. ci lépp looy defal sëñ Tuubaa. ndax bu ma ndax nee na bu sañoon. fii ma nekk fii ma njabootu Serigne Touba ak yëpp fii la ñuy nekk ci ñoom nee na loolu mooy lam ca mën a nettali daan na ne ko nag neel Serigne Youssou na sant te sant sëriñ Touba moo ñim àndal ndax na xam ne ñoom yéen li ngeen nekk mooy li sëriñ Touba bëgg ñëpp nekk ca nee na nag ndagam yéen la ko Serigne Touba taw feexalee nag nee na ñëpp wala wërbati ko ànd yéen ci loolu nee na yéen da ngeen di nekk ci sëriñ bi guddeeg bëccëg nee na lii bi mu ko koy wax matul weer nee na la ca des nag du luñ mën a wax ci mbooloo nee na comme sant leen bu baax a baax ndax nee na bi mu ko koy wax ci xaal bu xóot la ko ko waxee nee na muy lu ko ñor lool nee na loo xam ne fam ca yegg mën su koo leeral kon nag képp ku sëriñ Tuubaa gind ci yéen ku ne war naa sant bu baax a baax ndax wamaa yantixu anil hawa moom du waxee bakkan kon nag nee na ñu ngi sant yàlla bu baax neen di leen gën a ñaanal nag ci liggéey bi ñu yàgg koo ànd ak yéen ñu daje seen ngërëmal Sëriñ Tuubaa nee na sëñ ñu ngi lay santaat bu baax ndax li la sëriñ bi di seereel li ko gën a yéem ci yow nee na amoo bëgg amoo bañ amook tànn nee na lu mu la xas wax rek lum mu mën a doon doo ci xalaat dara da nga koy def ca saasa nee na nag loolu moo la may li nga am sëñ Yuusu nee na comme nag yàlla na ci yàlla saxal amiin na te nga yàgg jiite daayira bi lu yàgg nag ndax lu di njàmbaar rek daje na ci yow ndax nee na yow doo sonn nee bi fi sëriñ aatu di nekk nee na dala daan wax ne yow malaayika nga daanaka nee na malaayika nag mooy laa yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun nee na luñ ko digal rek moom lay def nee na malaayika mënut def lu naqari yàlla ak topp rek la mën a def nee na comme nag ñu ngi lay sant bu baax nee na li lay ñaanal mooy kàttan ak wér ak gudd fan amin ndax nee na xam na ne njiit gu mat njiit nga neen ñu ngi lay sant bu baax di sant ñi fi teew ñépp nee na di yóbbante nuyoo ci ñi fi teewal sëriñ Mbàkke yu fay ndax nee na bañ fi ñëwee ba tey nee na bis bu set li mu fi indi ci teraanga kenn xamul nu mu toll te nee na bu ko defunoo bu ko defudoo itam li muy liggéey sëriñ Touba ci dëkk bi ak ci taalibe yi nee na doy na sëkk nee na loolu nag loolu rek tàbbi na ci biir ak cantam nee na mi ngi sant ñi fi teew ñëpp nee na mi ngi nuyoo sëñ bugaan mi di taalibe Serigne Touba nee na di wóllëreem bu yàgg di ko nangoo liggéey te nee na yamalewut ak sëñ dara nee na comme mi ngi koy ñaan bu baax suñ borom dëgëral ko te kàttanal ko sib liggéeyam nee na mottali yéene nitam nee di sant bu baax rek ci jotaay bii ndax xasida yi ñu fi doon jàng ku am tawféexu man cee xam tuuti man cee dégg tuuti nee na war ngaa sant bu baax a baax nee na ndax lu baax dafa yombul ndax fi jamono toll nee na comme yéen ñi am ngeen tawféex ju rëy ngeen xam ne tànneefu Serigne Touba rawatina seen kuréel gi nag. nee na xam na jàng ji ngeen daan jàngal doomi Serigne Touba di ko déggee feeñ na ci nee na moo ci def mbóot mii nee na moo tax day toog ci ëtt bi nii waaye nee na fu ngeen tàmbalee rek mu xam ko nee na nag sant na bu baax a baax nee na yàlla na ko sëñ Touba nangul ndax nee na xasida yi lépp da cee nekk ndax nee na lu ci ne rek boo déggee nee na ci li ngeen fi jot a jàng mu teewlu ko. mu ne anqis iyaali min addalaali wa bil xalaali xallit saraayi nee na moo waral taalibi sëriñ Tuubaa yi du ñu réer mukk nee na ko fàggul nee na comme sant bu baax a baax nee na moom mi wax ne huwa alxabiru lazi bil xay bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hmm. man an baka haza man man man an baka haza dañ ko walaaj xaala nabba ani al alim mu ne xaala nabba ani al alimul xabir nee na loolu Sëriñ Tuubaa rek lañ déggaan wax ko nee na ma laaj ko sama boroom Sëriñ Tuubaa rek lañ ko mës a déggee comme nag nee na ku loolu dalul sam xel nee gisul lu mën a dalaat sam xel ci àdduna nee na wax na ko nit léegi ku fi ñëw sëñ Saliou Gueye nee na ñuy waxtaan rek ci yoon wi nee na mu ne ko Serigne Touba du ko ñuy tontul du ku ñuy xulal du ku ñuy xeexal ndax daa noppi ci lépp moom sëñ Touba mu ne nee na mu ne ko mu lii liggéey bi nee na jéem a fexe ba li sëriñ Touba nekk ñu góor góorgóorlu ci ndax yoon wi aaruñ ko sàmmuñ ko. defuñ ci dara lépp Serigne Touba ko def. nee na mu ne ko yaar rek a fi mën a am. loo xam ne daa tege ci ay pexe. mooy li àdduna di tëral. di nguurug àdduna. nee na lii nag li Sëñ Touba yor mayug suñ borom la. nguurug àdduna moom. day màgget. di rab di raaf di yàqu. neena mbirum Sëñ Touba nag. saa su xëyee. day gën a jëm kaw. di gën a jolli te gër da dara mënu koo baare jërëjëf nee na mu ne ko nag lu am téeméeri at ndax yaar rek a mën a am li tege ci dëgg ak lu tegewut ci dëgg nee na mu ne ko lu ci dëgg du yàgg lu tege ci dëgg nag neen li muy gën a jëm kanam di gën a yàgg nee na mu ne ko nag mbirum Serigne Touba am na téeméeri at lu ne traversé na ko jàll. nee na xam nga ne tubaab yi seen doole xajut ci dara. te état la woon. nee na état français yëpp jàmbaaroog Serigne Touba. ba noppi nag daanu ci kanamu Serigne Touba. Serigne Touba am ndam. lam waxoon ne danañ fi jóge yàlla def ko. te ba mu koy bind. nee na boobu ñu ngi ci kaw suuf. te nee booba xel mënu koo xalaat nee na moo tax mbirum sëriñ Touba yàlla noppi na ci nee na li ci am solo rek mooy yéene ko ko ndax ku ko ko yéene sa mbir day jëm kanam nee na ku yéenewul Serigne Touba li ko yàlla defal nag nee na yërëm na la ndax xulubu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaxuuna maaraamu walal baaba nee na soxol bi yëpp ci njàqare la jëm ndax saa soo xëyee di gis yoon wi di gën a yëkkatiku sa xol di ca tàng te doo ca dara te lépp looy wuti itam nee na yàlla day tëj bunt ya nee na yàlla na yàlla dimbale suñu bëgg Serigne Touba te yéene ko li ko yàlla defal ndax li ko yàlla defal kat ku ne jéem nga waaye lii sëriñ Touba am nee na kenn mësu ko kenn mësu ko am te kenn du ko amati nee na ñun ñëpp àttan nañoo jël suñu bakkan joxe ko ngir jëmmi Serigne Touba suñu alal ji yëpp mën nañ koo joxe ci yoonu Serigne Touba te duñ ko rëccu nee na jur doom joxe ko Serigne Touba rek ko mësa am te nee na ay junniy junniy junniy la ci am kon nag war nañoo xam li ñu Serigne Touba defal te xam ne saa su xëyee rek day gën a yomb ci ñun liy jafe di ñu gën a sori nee na loolu nag du ñun mooma te képp ku leen song itam ci sa kaw lay delluwaat nee na comme nag ñi ngi sant bu baax jërë ngeen jëf wa assalaamu aleykum wa rahmatullah comme na ñëpp tàll rek sëriñ bi ñaan Mbàkke yàlla nga fi yàgg te amin jërëjëf. ma sant leen bu baax euh, wax it ne moom sëñ Bass moom dafa am cër boo xamante ne kenn joxu ko ko sëñ Tuubaa moo ko jox ndax kenn ku ne am nga sa turu bopp am nga saw sant boo metul tur yu mu yor sëñ Mouhamadou Bachir am na ñu ko tudd ñu bëri euh, sant bi sax mën na mën nañ ko bokk moom waaye moom dafa am beneen cër bu mu amaat mooy dafa laxasaayu euh, ñi fi toogal sëñ Tuubaa di ko liggéeyloo kon porte parole la loolu nag. non de fonction la boo xam ne tax na séq na ak dong yëpp euh, loo xamante ne sax boo ko mënta defal ñëpp it moom bu ko sàkkoo wax da cee am loo xamante ne da nga xam ne xaas boobu la ko may mooy cëram ak ni mu laxasaayoo ci ginnaaw Cheikh Mamadou Mountakha kon dafay nekkal murit yëpp loolu daal ñu ngi koy sant bu baax ndax tamit euh, gis naa ne saa su ne sëriñ baa ngi koy liggéeyloo suñu diggante ak moom waaye yitte jëm ca wane ak yéene jëm ca wane tax na ma xam ne kii de ah, wax dëgg yàlla cëram bii dafa mel ni Serigne Touba mi nga xam ne moo ko ko jox moom Serigne Touba dafa matale matale ko daf ci feeñ ndax nit moom euh, boo xoolee ni muy liggéeyee ak ni muy def li may soññaat sama bopp rek mooy nun dong yëpp ñu xam ne dañoo toll waxtu woo xamante ne euh, yaa rabbi xalil muridina ma fees nikal xasin wa sam lañ ma loolu moom nañ gën a góorgóorlu rek mooy liggéey bi boole suñu bopp rek euh, li may soññee waa Hizbut Tarqiyyah bis bu seet nee naa leen man de am naa kartu Touba ci kanam at mépp jël naa ay éléments tamit yoo xamante ne xuddaamul xami xadim lañ bokk wala yu bokk ci euh, safinatu lamaan am ay carte te dara waralu ko lu dul dañ leen di soññ di leen wan ne lépp lu baax luy dox ci yoonu murid rek nañ ko doxal euh, boo demee boo ñëwee daara Dakar da ngay gis ne guddi àjjuma bu yàggul ñu ngi ko def sëñ Abdou Karim kër sëñ Abdou Karim mu sëñ Abdou Lahat ca Géejawaay loolu dara waralu ko lu yaatal ak gis ne nit ñi jublu nañ liggéey bi jublu goo xamante ne xañ leen ko ñàkk xam la ndax dadul sunu alal mbir mi day dem ba toll foo xam ne da xam ne yàgg ñëpp ko bokk kon nag fekk tànk lay waa ngi mat rek yaatal gi moom nañ ko jéem te di ko def te defee ko defin wu sell woo xamante ne lu baax fu waay nekk di ko def rek bu ko defee mel na ni suñu biir la ko defee li nuy def itam dafa mel ni ku nekk ca sori sa dafa mel ni yaa ko moom lu baax daal i'laa kalimatillahi al-'ulyaa ku ko def seen liggéeyal nga sëñ Tuubaa lii rek daal. sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg